man Guy Marius Sagna fu ma Babacar Diop teewal am naa kóolute ci moom Babacar Diop bu ma teewalee ci mairie doy na ma bu ma teewalee assemblée nationale doy na ma bu ma teewalee président la république doy na ma bu ma teewalee ci jàpp doy na ma bu ma teewalee ci église doy na ma tey dëgg la dañoo ñëw pour inaugurer benn maakaan siège Ibrahima Sarr bu Thiès Mais Babacar Diop à FDS vous inaugurez plus qu'un siège vous inaugurez une nouvelle manière de faire la politique au Sénégal et en Afrique vous inaugurez de nouvelles valeurs au Sénégal et en Afrique et ou moins la contribution importante fondamentale de Babacar Diop et de FDS à au Sénégal et en Afrique félicitations à vous tachoule loi FDS Sénégal ak Afrique dañ leen di noot Sénégal suñu ndox France moo ko yore suñu koppar France moo ko yore suñu l'armée France moo ko yore làkk bi ñuy jëfandikoo école France moo ko suñu budget FMI ak Banque mondiale moo ko yore suñu commerce organisation mondiale du commerce moo ko yore loolu mooy nooteel suñu géej jaay nañ ko Union européenne suñu raay dañ ko jaay jaay jaay jaay ñu yi lépp lu ci baax bàyyi ñu lu bon ba tey jii nii kenn xàmmeetul raay lan lañ doon wax benn dëkk ñaari gaar rey nañ loolu damati nañ loolu loolu la ñu war a soxaliku de benn dëkk ñaari gaar à benn dëkk zéro gaar ñun waa FRAPP moo tax mënuñu ñàkk ñëw ñun waa Doyna moo tax mënuñu ñàkk ñëw ñun waa m 2 ndaxte or les membres d'une même famille nous nous les membres d'une même famille dañuy boolelante ngir les pousser nous nous prier. or il faut que Babacar Diop et les FDS prient parce qu'ils le méritent parce que ont am sous gisu fekkeeku dañoo am gis sous libération dañoo am gis sous émancipation les am gis-gisu moom am sortie du sous-développement et de la pauvreté Lui, mon Babacar Diop est un homme exceptionnel. Mais tous les Guéloirs de FDS, vous êtes des hommes et des femmes exceptionnels. il y a des jobs dignes il y a des jobs indignes Babacar Diop fait partie des jobs dignes. il y a des nitu ending, indignes il y a des nitu ding. dignes Babacar Diop fait partie gannaaw bi ñu jiitalee docteur Babacar Diop bu ñu déggee ne ca Thiénaba maire bi mu ngi sàcc suuf ak carrière yi ñun waruñu toog seetaan ñun waa dañoo war a dem doole leen bu ñu déggee ne commerçant Thiès yi ñu ngi leen di waruñu toog seetaan dañoo war dem ak ñoom bu ñu déggee ne waa Mbourkat ñu ngi toj seen kër waruñu toog seetaan dañoo war a ànd ñoom bu ñu déggee ne yi nga xam ne mooy waay laago yi te ñu nekk INEFJA ñu loo xam ne du dëgg du yoon dañoo war a dem soutenir leen ñoom waa INEFJA lii mooy gis-gisu docteur lii mooy gis-gisu FDS lay gëlawaar yéen bi diis na waaye yaakaar tasul am nañ yaakaar ci yéen waa FDS am nañu yaakaar ci yéen fuu lay gëlawaar